Heavyweights.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 door ba mu jaare fa ñàkk bakkanam unne mbir mi ñu ko doon atte ci chambre criminelle te ba wattuwul nag aajeey yoon dana ko tëj giiru dundam ci wàllum faat bakkan mbir mi nag nee ñu nii la demee le 27 avril 2017 bi weesu nee ñu bis boobu aajeey mi ñu accusé moo faat nee gis na rakkam bu jigéen poori 22 heures dem dugg néegam doon jël xaalis mais ci noonu ñu toog ab diir yaayam di ko laaj fu mu nekk ne bi mu déggee yaayam di ko laaj ci la jógee dem seeti ko ci biir néeg bi à sa grande surprise mu fekk rakkam bu jigéen boobu am fukki at ak juróom-ñaar summeeku bay waa jot dung ne ca xaritam nee ci la mere dal di génn jël bant yemu ca mu jël paaka wuti xarit ba daa di koy faat. ci kanamu yoon nag ajay nee na dafa njortoon ni xaritam bi di M Kayre da doon bëgg a violer na it rëccu na li mu def ma ne ko boobu rëccu fekk na mu wees ndax nee na li mu def mer doo ko ci dugaloon te it bu démb doon tey dootu ko defaat sa watuwul nag ajay ma ne giiru dundam dinañ ko ko tëj moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Tuuba doy na waar ab jigéen bu am jëkkër lañu fa sàcc ay vidéom yu mu ne dung di ko ci santage pour tëddee ko na si mu ngi wuyoo ci turees ngam waaju ñu naan iseen di jëkkëru xaritu benn bakkanam moo sàcc ay vidéom yu mu ne dung di ko ci santage mbir mi mi ngi xewee ca quartier Serigne Ñaan Diop ni mu demee nag nee ñu es ngom daa dénkoon portable am xaritam ci la jëkkëru xaritam bi récupéré portable bi rocci vidéo yi <laughs> ma kii da ko yàgg xemmem de i seen di saay bu mag boobu nag bi mu amee vidéo ndaw si daa dem ci néegam doon ko santage pour tëdd moom waay waay kii ya bon waaye ndaw si doon jigéen ju am fulla daa di lànk <laughs> waaw waaw ma ne waa ji da koo xel waaye nag réew mi nag li ci am doy na waar bàyyi sa jabar di yootu jabaru jàmbur te nag loolu mu ngi mel ni bàyyi fa lu la lew dem di yootu medd ma ne réew mi ñuy dundee medd bari na i seen nag bi ko ndaw si di es ngom lankale plan bi mu nasoon dafa mer daa paas vidéo audio yu ñaaw yi es ngom defoon ab tëgg bu ñu naan Dekayre eskay ci la Dekayre jëlee relais bi moom it jaar fa Isen jaaroon di santas es ngom di soxna si nga xam ne daa am jëkkër ngir tëdd ak moom waaye ndaw si doon jigéen ju am fulla lànk ba tëdd ci naaj bi waaw góore waay ci noonu it la ko Dekayre mere dal di jël vidéo yi publier ko ci WhatsApp pour venger femme bi dal di déposer plainte ba fi mu ne teg nañ loxo dee kayre maa nga ca loxol yoon i seen ma ko ca dugaloon nag dal di nay daw dem Thiès ma ko xam nga ne du rëcc de moo tax jàngat bi nag mooy jigéen ñi dee sàmm seeni cër ndax yàlla da leen a teral waaw naka la jigéen mën a defee yaramu neen summeeku ba ne dung di filmer boppam filmer bay filmer ay awraam <laughs> waaye lii kenn mësu koo gis ba vidéo yi mujj teeri ci mbedd mi sab sak jaare fa sàggeeku ba faw ci nag loo xam ni sa jëkkër donga ci waroon a am accès waaye Sénégal fi mu ne jigéen ñi fi seen jëkkër war a saam nañ ko ci mbedd mi ndax colka gu bon moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Podor doy na waar ab xale bu jigéen bu am 12 ans la fa ñeenti ponkal dogale ci yoonu école wàcc ci seenub oto ci kanamu ay xaritam daa di koy kidnappé nga ni ma mbir mi mu ngi xewee ca ŋawle xale bi nag biñ ko kidnappé gaa yi dañ koy yóbbu waaye nag attends attention attention kidnapping boobu mën naa bañ a demee nuñ ko foogee de ndax nee nañu gaa yi li ñu def ab aada pël la aada buñ naan ceynogol ndax yàgg na faam ñu koy def jigéen ñi nga xam ni dañu leen maye ba noppi te seeni borom kër defalagu leen mariage tey it jëlaguñ leen nee nañu it ci source yi jege xale bi te ñu kidnappé ko mbir mi demewul noonu aadab cey na ndax xale bi ay way juram ña nga ca Mauritanie takk nañ ko bu yàgg doon xaar jëkkëram ñëw cey Sénégal xale bi nag mujj naa feeñ ma feeñee ca njum ca waalo diggam ak fi ko jëlee toll ci juróom fukki kilomètre ma ne xale bi ñu ngi ko fekk ci kër way juru jëkkër ji xaritu jëkkër yi ñoo ko cey na di koy yóbbu te it nee xale bi maamam yi ko yar ànduñu woon ci sëy bi waaye way juróom yi ko jur te nekk Mauritanie ñoo d'accordoon ci sëy bi ba dugal ko ci information yi mujj yi nag xale bi mujj nañ ko delloo ca ŋawle gañ ko jëlee woon xanaa foofu de mooy dëkku Penda Sarr ca moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a garaaw corona la wax la ca mbuur day na waar ab xuloo bu dox ci ay woy bëggante moo fa indi ab xeexoo ba bakkan mujj cee root mbir mi mu ngi xewee ca mbuur daaru salaam Médoune Ciss moo fa doon bëggante ak ndaw suñu naan Augustine Faye waaye Médoune Ciss daa yàgg a soupçonné ndawam soosu ne da koy trompé ak beneen góor waaw nga bàyyi ko te noppalu guddi 21 jëm 22 bi weesu boori 2 heures matin ci la Médoune Ciss gen dem kër Augustine Faye ngir xool ci lu mu nekk ci la fa jàppanteeg corom soosu corom si mujj woo faram wu jar wu bees wi tey wuyoo ci turu Ansu Diouf ci noonu la Ansu Diouf ñëwee ñoom ñaar ñu jàpp Médoune Ciss sot ko daa koy dóor ba mu jaare fa ñàkk bakkanam fi mu ne yoon teg na leen loxo ñoom ñaar ñëpp may laaj nag Sénégal ba xam lii jaroon na ko réew mi lu ne nga fiy dégg mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz